lii c'est pas un procès le mot procès dafa ëpp ci lii régler waaw lii benn entreprise de liquidation politique la bien entendu avec le concours du personnel judiciaire mënoo ñëw pour la première fois benn problème am dans un pays un dossier judiciaire ñu ne la le principal enquêteur nañ ko il n'est pas de l'opposition il n'est pas de Ousmane Sonko bokkul ak moom juge bi nga xam ne moo njëkkoon jot dossier qui en a vu des d'autres beaucoup plus graves s'est désisté le gynécologue qui a fait l'examen ñu ngi koy menacé de mort malgré tout ngeen ni ça personne des audios sortent où la supposée victime fait des aveux, quand on connaît la relation entre euh, Serigne ak taalibe fait des aveux circonstanciés daal ni man de dañ maa yabaloon en réalité dañ maa yabaloon qu'il s'agit d'un complot que la personne <coughs> le dans le dossier toujours ñu gis ni y a aucun témoignage aucun bu corroboré li ku jigéen ki di wax aucun témoignage amul principal ki ñu accuser daal ni lii complot la woon ci suba ñu ne ko kan moo la comploté mu ne ku ñuy wax Mamour Diallo lan ngeen jotee yaag Mamour Diallo Mamour Diallo damaa dénoncé benn spoliation bu mu teg moom ak ay collègues am des impôts ak benn prête-nom bu ñu wax Tahirou Sarr pour spolier l'État de 94 milliards. yéen ñëpp ngeen def fii ñaata émission multi émission c'est pas vrai Mercalex 12 milliards la ci bëggoon ngeen wax cee wax et pourtant le rapport de l'OFNAC sort non seulement remercie Ousmane Sonko. pour lui avoir fourni toute la documentation nécessaire ba nga xam ni moom sonnul sax ci enquête am établir ni effectivement les 94 milliards bi fi plateau yëpp weddi woon am na wax la yan compte yan banque la kan moo defaat yéen édition spéciale pour pour ni li ñu waxoon Ousmane Sonko la même chose la woon quand vous parlez du dossier 94 milliards tout ce qui vous intéressait Mercalex 12 pour cent rapport lire ko doo ci gis moo Mercalex parce que c'était faux usine à gaz la sa position bi aussi loolu la sur quelle base on a mené l'enquête sur quelle base on a euh, on a dessaisi la section de recherche sur quelle base on a levé son immunité parlementaire sur quelle base s'est déroulées les auditions et sur quelle base s'est déroulé le procès à à loolu nag ñu tenir compte du code de procédure pénale une personne soo nee est-ce que bëgg na dem la question sous-jacente moo waroon a nekk pourquoi bëggul dem à la limite pourquoi bëggul dem mu ne la gis nga lii depuis le début li ma leen wax la on a voulu tenir compte de absolument rien lu lay décharger jusqu'aux aveux aveux nga déglu aveux ki ñu ni dañ koo violé wax la ci télé ci ci enregistrement du audio bu mu bàyyi wala bu ñu détourner mu wax la ni man mii kat dañ maa dugal ci ñi ma ñi ma dugal ñii la ils m'ont promis ils m'ont promis ça et ça et ça kii ñuy tuumaal man mii xam naa ni deful dara nga ne audio boobu enregistrement boobu liewu ma en tant que juge aveu liewu ma léegi lan moo la lie lan mooy dossier lan lay redouté ci procès lu mu redouté wul woon depuis ñu koy rajee lu mu redouté wul woon biñ ko euh, bëggee jàpp mu ne leen kenn duma ma jàpp xam nga lu ngeen doon wax lu muy ragal na bàyyi ñu bañ a lever immunité parlementaire suñ su bàyyi woon ñu lever sans lui lever immunité parlementaire am heure bi mu ngi instruction pendant trois ans. ci kaso qu'est-ce lui fait dire aujourd'hui euh, que benn juge mënu ko condamner. parce que le le dossier tous les spécialistes xanaa la première fois su doon sax y a une voix discordante. Mm. à part le gouvernement ban spécialiste nga mës dégg mu tiim dossier boo xamante ni le certificat médical disculpe. qu'il y a eu des erreurs de procédure ñu génne le rapport de la gendarmerie qui montre que le procureur a tenté de manipuler a même manipulé le dossier nga déglu ojo déglu nga ni amoo xolal amoo une preuve testimoniale amul ñenn kenn kenn koo xamante ni mës na témoigner en faveur du viol loolu mësul am ci ñu nekkoon ci kër gi yépp la victime c'est ça seule parole qui aujourd'hui alors même qu'il y des euh, éléments à décharger qui sont scientifiques wala ay audio wala ay enregistrement wala ay témoignages moom c'est sa seule parole qui aujourd'hui drive tout le dossier te question boobu ngeen di nag du ngeen ko poser vous voulez pas poser cette question pourquoi une procédure judiciaire de cette nature <laughs> boo xam le principal enquêteur est sorti du dossier le premier juge saisi a refusé d'instruire que le, le, le gynécologue étant est menacé de mort par qui qui menace le le le le qui de mort c'est Ousmane Sonko et ses ki menace le le l'huissier gynécologue bi ni man Mamour Diallo ak Gabi Sow ils m'ont avant ñu yóbbul leen 40 pages de réquisition 40 pages de réquisition téléphonique montrant que ni Mamour Diallo Gabi Sow sont en contact avec Sidi Ahmed appelé nañ le gynécologue bien avant les faits xam nga y un élément du viol définition bi y a l'élément de surprise mooy da ngaa bett kii mais pas loo planifié élément de surprise boobu disparaitre na du dossier Parce que Gabiso nee na man maa reconnaître sur papier écrire ko au bâtonnier je reconnais avoir euh, reçu Adji Sarr jours avant les événements les faits mu ne la gynécologue bi ni la Mamour Diallo proposé na ma 200 millions pour ma changer version au vu de tous ces éléments là en l'absence d'éléments matériels amul audio amul dara ngeen bëgg a toog ni vous allez continuer le gouvernement décider juge boo xam ni da ngay en décharge ñu ne la kaay ñu indil qui peuvent vous aider à, à, à bien instruire le document Mamour Diallo cinq minutes d'audition loolu jaadu na koo xam ne il est le cerveau de l'affaire nga déglu ko ci làmmiñam enregistrement moom ak la victime supposé nga déglu leen ngeen ni tous ces enregistrements là par pertes et profits dañ ko sànni léegi quelle est la définition du viol quel est l'élément matériel gisuñu fa conjonction sexuelle boo xam ni am na amul conseil y' a pas d' de contrainte y' a pas d' de surprise léegi nga xam ni kii dañ koo bëgg a teg benn entreprise de liquidation ñu teg ko sur la table nga continuer naan ko qu'est-ce qu'il attend d'un procès qu'il n'a pas reçu lors de l'instruction. Alors, dinañ ci ñëwaat Amadou. Donc, question yi ngeen li ngeen ah, war a poser ah, encore ah, une fois. Amadou vous ne voulez pas qu'on aborde la question du complot et de la liquidation. Amadou da ngeen continuer may ma rek fa lay daanelee. Vous voulez faire croire aux gens que dans ce pays la justice politique est libre. Amadou, vous voulez c'est qui vous? C'est dans vos manières de présenter là. C'est une manière partisane. alors donc vous devez poser la bonne question. au Sénégal il n'y a pas de justice politique libre. vous n'avez pas le droit. de juger je ne juge personne. Donc, que vous êtes en train de faire. la manière bi may poser c'est pas à vous nga jàngal ñu ko. non kenn jàngalu la manière bi. dañ la wax tamit yow il ne faut pas nga orienter l'opinion dans une vision. de poser les questions yi ma war a poser. ma li poser du bokk ak la poser. et vous n'allez pas me l'apprendre. dina ñëwaat ah, Amadou dina vous êtes libre Amadou vous êtes libre de jeter le discrédit euh, sur ma personne non mais si euh, defal waxal lu la neex alors Amadou Amadou ça man ça ne me dérange pas parce que je suis quitte avec ma conscience donc ça ne me dérange aucunement alors euh, mon objectivité mon objectivité du yow laa koy wan non donc l'objectivité non non du yow laa koy wan ñi may seetaan pendant des années ci plateau yi xam ne nga gis objectif ou pas alors dinañ ci ñëwaat ah, ah, Adama euh, aujourd'hui est-ce que euh, le juge bu ñuy wax il instruit à charge et à décharge euh, ni ñu présenté mbir yi enquête bi ni mu demee du début à la fin am ñoo xam ne dañu leen waroon déglu muy maître Gabi Sow wax nañ ko sànq am koo xam te ne également muy maître Dior Diagne même si génne na benn lettre dinañ ci ñëw après kenn dégluwu leen est-ce que